di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax euh, di gën a santaat yàlla aussi tamit ci dajale bi nga xamante ne dajale nañ ko fi muy monde làmb tey suñu président di Gris Bordeaux ñu jiital daanaka buñ nuyoo Gris Bordeaux rek nuyu nañu bëri yëpp waaye nag li ma ci njëkk wax mooy ñu ngi sant ñi nga xamante ne ñoo waral lii tey du làmb ndax làmb fu mu jógee moo sori ancien gowaar yi ci mel suñu papa Mbaye Guèye Robert ay Falang ay Doubalès ay Boy Bambara ñoo xeex lii ba tey ñun ñu ñu war ñoo xeex kon ñun bu ñu xeexul rek du ñu ay góor ndax mbër mbër moo gore mbër mooy jàmbaar mbër mbër kenn mënu ko fay parce que ñu dañuy simbiku di jaayante di dem ci jéego di dem ci montagne yi di dem ci musculation

ndax am na solo ndax bañ la jiitalee am na loo bëri mën a koo xam mais boo wàccee ci terrain bi di nga xam lépp di nga gisal lépp réew mi fu mu toll ndaw yi sonn nañu jeunes yi sonn nañu bien vrai que yàlla suturaal nañu ah ñafe nañ suñu laaj ba àgg fa war a àgg te dafa may xale yoo xam ne dañoo topp suñu ginnaaw bëgg ñu yaakaar ñu te bu ñu bëggee làmb aussi tamit ñoom ñoo tax ñoom ñoo tax. kon nag rafet na ah mesures barrières yi mën nañ koo respecté. dañ ko mos a dañ ko mos a boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan di ci def suñu. képp laay kattan. kon nag loolu rek mbër kenn mënu ko fay. ndax tey boo bëggee bu woote woon mbuur mbuur day fees dell. Gris noonu Balla noonu kon nag li ñuy ñaan monsieur le président de la République du Sénégal. mu tijjal ñu suñu stade ñu bëre tàllal ñu suñu loxo kenn pour ñu ñaan parce que su ñu am rek suñu bopp ñu ko liggéeyal parce que ñun ñu ñeme ñeme nañ ko mais xale yi xale yi bu jar a sóoraale la jeunesse bu jar a sóoraale la parce que ëllëg njëriñu réew mi ñu ci ñoom làmb nag mu nekk facteur développement boo xamante ne sa waay ah président nee na daal wax ci jarul yu bëri jarul yu ubbi làmb soxla nañu mu ubbi. nekk suñu activité. ñu nekk suñuy activité daal di parce que moom lañu am moom lañu yaakaar képp ku fi mës a jaar mu nga nekk ci état dafa respecté làmb jox cër làmb làmb neex amoon am fu mu toll mais léegi làmb moo ngi am tànk dellu ginnaaw te loolu monsieur le président xippil say bu baax te xam ne làmb am nañ ci yaakaar te yaakaar boobu ñu bëgg mu si yow dañoo bëgg boo fi jógee nga dem monsieur président de la République Macky Sall defal na làmb loo xamante ne kenn mësu ko defal dëgg la esat am na mais aussi tamit boo ñu boo ñu boo ñu ubbilee esat bàyyi ñu noonu rek bàyyi ñu noonu day metti monsieur président kon gars yi mën nga toog tey ñoo ngi rafetlu loolu Ele dançando.